Bonjour et bienvenue dans votre journal de la culture. Nous restons dans le sillage de la célébration de la journée internationale des droits de la femme. Ce 8 mars, l'ambassade de France a mis en exergue le potentiel féminin Plusieurs femmes ont été accompagnées dans divers domaines culturels, économiques. Des expositions se sont tenues au musée de la femme Henriette Bathily et un forum sur le thème Père et fille à l'initiative de l'ambassade d'Allemagne Voici Christine Fage, ambassadeur de la France au Sénégal. Elle est au micro de Josette Kali. Ce projet, euh, financé par l'ambassade de France, c'est euh, que nous travaillons en, en concertation avec nos, nos partenaires sénégalais, euh, s'appelle l'égalité en lumière. C'est un projet pour euh, soutenir les femmes et leurs, entreprises dans tous les secteurs, dans l'économie, dans dans la culture, Euh, et euh, généralement pour promouvoir l'égalité hommes-femmes dans la société. Nous avons ici 16 exposants, c'est tous les partenaires du, du projet qui euh, ont tous participé euh, d'une façon ou d'une autre à la mise en œuvre de ce projet. Pour nous, que l'égalité homme-femme et la promotion de, du droit des femmes et des filles doit être au cœur de toutes nos actions. au Sénégal, euh, ça rend la journée de la femme plus symbolique qu'elle ne l'était déjà. Et en interne, ça veut dire aussi la promotion des femmes. Qui, bah, nous avons euh, des entrepreneuses culturelles, nous avons des entrepreneuses économiques, nous avons aussi des artistes euh, et euh, des vidéo ou, ou des artistes plus euh, designers. Il y a, tous les secteurs d'activité sont représentés. L'exposition dure jusqu'au 8 les femmes et la société civile les engagements contractés par le Sénégal au Forum Génération Égalité. À travers ce projet, mis en œuvre par l'association Pour le ont été sensibilisées sur la violence sexuelle et, et les exploitations sexuelles. 80 sur les actions de lutte contre les violences basées sur le genre. 7000 jeunes collégiennes et lycéennes ont été, ont été sensibilisées au cyberharcèlement. 45 jeunes femmes ont été accompagnés dans la gestion organisationnelle de leur structure économique et la réalisation de leurs projets en deux ans. Et parce que au Sénégal, les femmes sont très entreprenantes, très dynamiques, et nous avons trouvé des partenaires qui euh, euh ont voulu euh, travailler avec nous sur ces sujets. C'est l'exposition organisée par l'ambassade d'Allemagne avec nous sur euh, les pères et leurs filles, euh, puisque au cours du projet, nous nous sommes rendus compte que les, quand on leur demandait quel était leur rôle modèle, parlaient de leur père, ce qui est peut-être contre Et nous avons souhaité filer euh, cette, idée et interroger les, les pères et leurs filles sur leur interaction et la participation des pères à la réussite de leurs filles, parce que finalement la cause des femmes, c'est pas l'affaire des femmes. c'est la ferme de la société en entier et donc des hommes aussi. Notre motivation, c'est que nous avons fait de l'égalité homme-femme la grande cause du quinquennat du président Macron et c'est donc de décliner euh, au Sénégal, avec les femmes sénégalaises, cette priorité de les, pousser. Et puis nous allons à la rencontre d'un comédien basé à Rufisque dans la banlieue. Il s'agit de Omar Sow, comédien basé à Koloban Mourit, plus précisément à Lendeng où il s'active le manque d'infrastructures et surtout de centres culturels adaptés à la promotion de l'art et de la culture dans ces localités, mais aussi le manque de formations dédiées aux artistes locaux qui ont besoin de ces formations pour mieux développer leur art. Voici Omar Sow. waaw ah, bon je m'appelle Omar Sow artiste comédien acteur de développement fii ci euh, je crois que les artistes qui sont ici ceux qui sont en bas parce que y a ceux qui sont <laughs> en amont et en aval <laughs> bon, artistes, les petits artistes comédiens, on doit les aider à se formaliser pour euh, euh, surtout avoir un centre culturel où ils se rencontrent pour faire des formations parce que euh, ils, ils, ils, ils, ne, sauront pas quand il y aura les formations. On ne les appelle pas. Là. Le communique, euh, la, la, communication, ça manque quoi. Avec les petits artistes qui sont. Je peux les appeler, on les dit des petits artistes, mais moi, je, crois que c'est des grands artistes parce qu'ils donnent des messages pertinents que certains ne le donnent pas. Quand tu vois les spectacles qu'ils organisent dans les quartiers ou dans les écoles ou parfois dans les, euh, quand ils se rencontrent dans certains spectacles. Non, non, je ne crois, je, n'ai pas vu ça. On les fait dans les terrains, parfois on se rencontre dans les terrains ou dans les rues comme ça. On n'a pas de centre Parce que même si, dit, bon, moi, je, fais l'électricité, je un électricien bâtiment. En même temps, je fais la sécurité, la nuit. Depuis que notre label Hervision a de, de jouer, c'est le label Production qui m'a copté pour euh, et des gens qui sont, qui sont bien, qui sont à Dakar. Et je viens jusqu'à Rufisque pour, pour prendre mon, mon personnage avec ma sœur euh, qui s'appelle Farmata Sow. souvent c'est lui qui devient ma femme dans ce, ce film-là. C'est ma grande sœur, mais <laughs> comme il, ne savait pas, même pas ça qu'on on, est de même père. Mais <laughs> c'est l'art, qui, nous a, a, qui a fait ça, quoi. Qu'il, le prend comme actrice et il me prend ici comme un, père de famille, or que c'est ma, sœur qui m'a pris. Oui, aux yeux en polar, oui, aux yeux en polar. C'est quelque chose qui m'a marqué bien, qui m'a très marqué quand Parce que pour le développement, Si on les encadre, il y a un manque d'encadrement, si ne, fait que des espèces de fausses dans les écoles. Or qu'ils pouvaient, presque si on les formalise, ils pouvaient même sortir de, ce pays. Faire même euh, avec euh, le cinéma, avec le cinéma actuellement, comme l'art euh, <laughs> un peu grandi avec le cinéma là, les, les, les, les enfants pour avoir bénéficié. S'il a, a, des formations, oui, oui, c'est un problème de formation. Oui. C'est les arcos de Rufisque là, les, <laughs> qui, qui essayent, mais peut-être euh, eux aussi, peut-être euh, ils pas un, euh, support derrière parce que même si du compte avait parlé ce que j'ai dit là, si du compte un, un, un, artiste comédien, un coordinateur, qui est un ami de Sopé, bon, il avait parlé même de ce que j'ai dit là, l'infrastructure pour, la, pour culture ici à Rufisque. Il m'avait même parlé de ça. Et il, fait, des actes bien parce que tout récemment, les ouvertures là, il avait coordonné avec euh, une association à Medina School, Medina School, qui avait amené ici des, matériels pour, l'école. En tant qu'artiste, il a fait ça, or que c'est ceux qui habitent ici qui devaient faire ça. Euh, je salue aussi, je félicite aussi l'association euh, Medina School qui avait fait ce, euh, ce don-là pour l'école Barak de l'école Coloban de Nord, qui s'appelle École Barak. C'est la fin de votre journal de la culture. dal leen ak jàmm ki seen xibaaru mbatiit ñu des ba léegi ci xumbute yi amoon jàpp jëm ci 8 mars bi bés bi ñu teg leen jigéen ñi ak seen i droit niki noonu ambassade de France jot na ànd ak ay jigéen ñu bëri ci réew senegal ngir màggal bés boobu boobule jaare ko ci ay lëlu waxtaan ak ay exposition jàpp jëm ci taxawal feeñal ba noppi gaaral ay exposition Euh, ci liggéeyu jigéen ñi ak seen pas-pas ak seen taxawaay jàpp jëm ci seen droit yooyu lee don ay forum yoo xam ne ni ko waxtaanee lan mooy taxawaayu góor yi ak jigéen ñi rawatina bàyyi yi ci li xam ne moo jëm ci wàllum euh, gunge jigéen ñu jot seen i ak ak ci àdduna warngal kàpp rawatina fii ci Sénégal nañ ci ànd ak nga xam ne moo di Awa Cheikh Diouf directrice exécutive bi musée de la femme bu Henriette Bathily fa xumbudee doon amee ci micro Josette Kali projet bi ñoom dañu doon jàppale ay jigéen fii ci dëkk bi ci ay région yu bëri ñu yëngatu ci fànn bu nekk fànnu économie fànnu aada ak cosaan ci fànnu vidéo audiovisuel yooyu yëpp ñu di ci liggéey di ci liggéey ba nga xam ne léegi mois de mars bi ñëw na bi ñu jagleel jigéen ñi war a def le 8 mars mu nekk bis bi ñu jagleel jigéen ñi ñoom ñu ñëwoon fii ci musée bi ñëw fi ci place du souvenir pour loolu jigéen ñi doon liggéey yëpp ñu mën ko fi wane ba nit ñi xam ne exactement jigéen ñi tam ñu ngi góor góorlu buñ leen jàppale dinañ dem ci kanam fi xew-xew bi nga xam ne moom mooy fësal loolu yëpp nga xam ne def nañ ko ànd ci nag ak musée de la femme Henriette ci waaw moom am na fukk ak juróom benn ñu nga xam ne ñu ngi wane fii li nga xam ne liggéey nañ ko ñoom ñu ngi fësal ay loo xam ne liggéey nañ ko ci wàllu ci euh, aada ak cosaan ci wàllu même transformation ak ci jigéen yi def yëpp loolu am na léegi nag ñu ñëw fii di ko wane tey mais ci biir loolu aussi dafa am ci biir salle musée bi ay waxtaan yu bëri yoo xam ne dinañ ko def ah jagleel ko li nga xam ne moo jëm ci mbaaxu jigéen jagleel ko li nga xam ne aussi moo jëm ci cyber harcèlement maanaam moom ñi nga xam ne dañoo jëfandikoo xarala yu bees yi pour di ci jéem a maanaam di ci jéem a chantage ay jigéen wala yu demee noonu dina am ay discussion invité nañu école yu bëri wax dëgg yàlla ñu wuy si ñu loolu yëpp dinañ ko def fii ci musée de la femme Henriette Bathily incha allah. projet tàggat jigéen ñi ah, juróom-ñaari junni lu toll ci ay ndaw yu nekk ci école yu diggu doomu yi maanaam boo jegee école yu ndaw yi jëm ci lycée yeeg yooyu après am na ñeent fukk ak juróom ci jigéen ñi ñi nga xam ne ñoom lañ doon former vraiment pour ñu produire ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom ñoo exposé fii léegi nag am na ay femmes yoo xam ne tam accompagner nañ leen former nañ leen jàppale nañ leen financièrement mot nañu ñu fanweer ak juróom ñoo ñooñu aussi ñu ngi fii tey teew fii am na tam juróom-ñetti fukki jigéen ñoo xam ne ñoom dañoo walanteeru di jàpp ci proposé ci projet bi di gunge ak jàppale bu projet bi yegsi fii mu yegsi jóge ci loolu wax ci wàllu jafe-jafe yi nga xam ne artistes yi dinañ ko am rawatina ñu yëngu ci wàllum théâtre ci banlieue bi rawatina fu mel ni euh, Colobane Mouride fële ca Tëngéej ak li ko war artistes yaa nga fa di yëngu waaye nag soxla nañu ndimbal rawatina wàllu formation tàggatu yoo xam ne ñoo mën a tax ñu gën a mën a ràññeeku gën a it mën a def seen liggéey ci wàllu aar niki noonu it ay barab yu mel ni ay centre culturel yoo xam ne soxla nañ ko fa bu ko defee ñu gën a mën a dajaloo ci barab yooyu lee di tàggatu di fent ay pièces yoo xam ne dina tax ñu gën mun a ràññeeku ci wàllu mbatit ci àdduna warngal kap ak Sénégal gi nañ ci ànd Omar Sow di comédien nekk jamono jile foofu la ca Colobane Mouride ca Lendeng ak li ko wër mais dañ leen di tànc dañ leen bu ñuy def bu ñuy jël ay nit sax comme formation exemple tey bu ñu amoon benn formation cercle Maurice Guèye ki dañuy xool ñi ñuy jël ak ñi ñuy jël ak ñi ñuy bàyyi wala ñi ñuy am nga bu ñu lay yëgul Eh, bokk ci ay formation ay booy artistes yu bëri xam ne ñàkk formation moo leen te booy yooyu tey parce que fii tamit à part à amu fi beneen kii booy yi di rencontré wu di loolu dañ ko manqué quoi kii culturel centre culturel boo xam ne nit ñi dañ daje di échanger ay yenn kii waaw liñ soxla nga ko mooy gars yi am milieu artistique boo xam ne milieu culturel boo xam ni centre lay doon xam ne booy dañ fay formaliser wu xam nga te mën na yem ci lay wax ni ak le bu Réew TV donc bu euh, ak surtout sensibilisation bi ñu doon def ci riiru nawetaan euh, bi Réew TV di door a tijji waaw def sensibilisation non violence waaw ak riiru tribunal boobu ma lay wax ni vol de bétail la punition bi ngu baaba bu nekk euh, ci wa Fulbe production ak Jamfo muy wax ci trahison bi ngu baaba muy wax ci takku suuf quoi mais pulaar la en pulaar la quoi ñu ngi am démarche nañ ak canal pour di ko traduire def ko waaw man moom loo ma bëri ba instant électricien bâtiment la en même temps damay yëngu ci sécurité waaw damay def sécurité su waaw ñooñu laa ëpp lu liggéey loolu ko waaw mooy waa Fulbe production pulaar la quoi waaw mais man nag comme man dama dégg pulaar dégg wolof fi la ñu ndar keppee seen xibaaru mbàttiit jërë ngeen jëf ci déglu bi